mbokk internet yi suivre AFD TV egsi leen ak jàmm ginnaaw bi ñu leen jaajëfalee ci suivre génn di suivre chaîne bi ak di ko aimé di abonné di partager ak di like vidéo yi ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax baax di wax ngeen continuer rek jërë ngeen jëf ñu dellu ci leen nag ci famille Sénégal yi ndax ku nekk xam ne nag xew mi nag yu bëree bëri yi nga xam ne doon nañ ko ci tiit nag di ko ci yaakaar ak di ko ci ragal nag lu ci bëree bëri nag lu ci bëree bëri jàll na te niñ ko yaakaare woon demul noonu ndax doon nañ foog ne nga xam ne moom mooy kodd nga xam ne noonu la ko ba serale woon ba nga xam ne kodd nag mënul am loo xam ne moom lay def nag maanaam jugul jugut sax lal ba nga xam ne fa la war a tëdd nag mel na ne loolu mujjee naa dañ ndax kodd nag mujjee naa sañ sa ba yëkkati benn baaramam ca kaw nag mu daal di ñëw nag toog ak ay bagaasam yu bëree bëree bëri ku ne xam ne ne xew moom yaay kodd nag mujjee na koo defar nag kodd mujjee naa fecc ba amuraas yi nga xam ne moom mooy yaayam nag ñu daal di kontante def seen ay affaire kodd ak ànd ngooram nag ñëpp di ko wayal nag mu di way ay njëkkeem di way ay ñi nga xam ne ñoom ñooy ay jigéenam waaw ñi nga xam ne ñoom ñooy ngoone yàbb ak nga xam ne moom mooy sagar loo daal waaye lañ neex a neex ko du baatare baatare ba sonn nag maye xaalis ñi xam ne ñoom ñooy ay ay tëggkatam ak ay wayakatam maye leen lu neex neex a neex ñu wayal ko mu fecc fa fecc yu neex koddu nag ne na ne nag dugg seem nag am na maanaa nag maanaam def na li mu war a def def na dem na solo solo sañse ànd ak ay gàngooram nag ñi nga xam ne ñoom la war a àndal ñëpp ñu ko war a dar dar nañ ko tàggkat yi ñu ngi koy tëggal di ko way di way ñi xam ne ñoom la àndal di way ay njëkkeem ak ay Eh, am di jàmmam ñi nga xam ne daal yaayam nag ku xam na ne moom ñi ci ñi defar xew mi la bokk ndax moo indi nag bu leen ko fàttati moo ñëw gox ko deux millions nag ba pare indaale cinq millions am pour ay affaire rek tere laateeg yu sew sewantoo yi nga xam ne war na am ci biir xew mi pendant nag ba tóor nag moom ma ngay sinap nee na nag waaye sama sama ami sinap yi nag leen nag maa ngi nii amuma wasinu moom waaye nag na ngeen xam ne maay ngénte maa yor xew mi maa koy ko wër nag ñi nga xam ne jaay rek lañ def nag di ko di ko di ko encouragé ko wax nag say mu pare nag nee nañ leen dem nag waaw waaye nag li ci xew nag mooy àll nag ma ngay sa buntu néegam nag jàkkaarloog buntu net nag yor ak kuuram toog di ko xaar batoor ne dara safu ko def ay biijam ak ay wañaaroom ak ay affaire am maanaam di wane ne daal li def nii moom dara safu ci kuur gi muy gis daal ak bàyyi ñoom la yemale àll nag moom la mu waxoon jógu ca ma nga fas xool di wax di ko ko wan ne daal jógu ma xew mi daal lu toll ne yow daa ci yàqee bétuma la maa li nga xam ne moom mooy laaj bi nag mooy mbaa àll ak bëtóor nag duñ mujjee yàq xew mi bi ñëpp calmé wee nag ba ñëpp nekk ci li ñu war a nekk nag ñu jàpp ne nag xew mi fi mu toll nii moom sotti na ba pare li ci des daanaka ay réglage yu néew a néew la ak ay affaire yu ñu war mujjee daal ba bëtóor ak àll daal duñ fi mujjee jàppante ndax bëtóor moom ku ne xam na ne mu ngi ñaawal àll te àll nag xam naa ne mën na cee gis boo